Mustafa santal dayab cante yaa fi Mustafa santal dayab cante yaa gën amul ku lay werante te ka ci Mustafa bokki taalibe yi baa ngi nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa Cheikh Mouhamadou Moustapha. Cheikh Mouhamadou Moustapha. jëwriñ jii di Cheikh Mouhamadou Falilou. jëwriñu Serigne Modou Aminta Fall. tànk yi ko tax a jóg mooy. bis bii ñëpp bokk. lu ñëpp bokk moom ku nekk am nga ci wàll. ku nekk am nga ci wàll. ka yittewul wàllam nee na ka yittewoo wàllam nag. ka yittewul. ka yittewul wàllam. ba jëlu ko. ba jëlu ko. kooka moo xam. waaye sëriñ Falilu mii yittewoo na wàllam wii. mooy lii ko tax a jug. siyaare ci ci bis bi bis bu tedd bi nga xam ni lépp ko bokk ñëpp ko bokk ah, nee na ñun murid yi sunu xel yi nan ko tàllal. sunu xel yi nan ko tàllal. buñ ko wudd rek. sunu xel yi. nan bàyyi. nan bàyyi sunu xel yi. muy xalaat lu jëm muy xalaat lu jëm ci sëriñ bi. bokk na ci loolu. nee na bokk na ci loolu. kii toog kii toog. di Cheikh Mamadou Moustapha. ma ma ma ngi mi ngi ni daw ci biir wax ji muy wax. ni mu jàppee. ni mu jàppee. bari na koo bari na koo xam ni. fa nga nekk. fa nga nekk. te nekk ca kanam mbooloo ma. te nekk ca kanam mbooloo ma. doxinu wi tax na. doxinu Cheikh Moustapha wii tax na. nga doxe noo ne ca nga doxe noo ne nga doxe ca mbooloo moomee. nee na ku ñëw ba fekk ko fii mu toog. xool ko. nee na Cheikh Moustapha du tas sa yaakaar. waaye da bett. mënoo ñëpp leen bett. nee na. ma ko mhm. nee na ku dox ba si faaw boo xoolee Cheikh Moustapha am lu la bett. ndax bu doon saa yi rek la. fa lay séenoo. fa mu séenoo. du la fa fekk mbàkke. waaye da ngaa xam ni. yëfi jàmbur nga yor rek. yor yëfi jàmbur nag. yor yëfi jàmbur nag. deesu puukare woo. nee moo dal Cheikh Moustapha mi toog. nee na mbooloo mi fi nekk. nee na doonul ci ñoom dara. nee di leen wommal rek. teg ci loxol kilifaam. yaa ahmadum li muhammadin li muhammadin yawmal qiyaam sant leen sunu waaji neex a àndal nga xel. wa mat nga ruy fi yeggu leen yebbal baay wa mat nga gumbayee boo la fa ñi tegel fanoo góor ak jigéen di jox ay càngaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay lii te fay mboolem jirim yeeg baay yaay seeni baay yaa ni teral yaa ni yaram may dërëm yaa ni defal yaa ni yaay jenn waay yaa yor Bamba yoraale moo tax yilib nga jàll saalum jàll xaay yaa xam teraangay waa kajoor ak waa bawal yaa yor sagu buur fi daa di am lambaay man nga naar wa mat wolof kenn réeratul yaa tiidaru baa dooleeg ñi di sant njaay yaa mustafa nil mustafa nil mustafa yawmal qiyaamati rang leen fu ay midaay miskin ya daa jooy Seexu Bamba ci wam sesin sa rongo seen rongo yi yaa mat la xaay mag jàkkatul ndaw tiitatul réew mépp a bég ngir mos lu ko dee mosal nga leen yaa bi sa yaa tee ñagub lislaam ñu sàqi ka yaa jënu rëy yaa tee murit seen mbaar manaay yaa boole galli boole car yépp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay